sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1912 ci dëkk bu ñuy wax nag Ndiine Ndiine nag mi ngi ci département nag bu baambay ci région nag bu Diourbel ci suuf si nag di Bawal ci dëkk boobu nag di Ndiine la sëriñ Cheikh Mbacke nag feeñee jamono muy doomu sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli ak soxna Faati Gom am na nag ñu bokkal soxna Faati Gom ak sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli ñu mën cee ràññee na soxna Busa sa Mbacke bintu soxna Faati Gom bintu sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli sëriñ Saaliwu Mbacke soxna Faati Gom ibnu Dia Mbacke Duyooli ak moom sëriñ Cheikh Mbacke ibnu soxna Faati Gom ibnu sëriñ Abdou Dia Mbacke Duyooli ñaar nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñett waaye am na keneen nag kum bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur góor muy ku ñu wax soxna Roqaya Njaay bintu soxna Faati Gom bintu sëriñ Alioune Njaay soxna Roqaya Njaay moom nag bi matee dem kër sëriñ Abdourahmane Guèye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdourahmane Guèye nag am nañ nag benn bant muy soxna Mati Guèye ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Abdourahmane Guèye moomu moom soxna Roqaya Njaay nag lañ lañ ko jébbal ku ñuy wax sëriñ mbay jóob ci dëkk bi nag di mbàkke mbayaar nekkoon taalib yëpp sëriñ Abdou Dia mbàkke du yooli soxna roqee njaay nag moo sëriñ mbay jóob nag am nañu ak njaboota ñu man cee ràññee nag soxna mariama jóob ak ku ñuy wax nag soxna daba jóob soxna roqee njaay nag kër yii mu dem njaboot yi ñu fa am ñooy jarbaati nag sëriñ cheikh du yooli mbàkke moom sëriñ cheikh du yooli mbàkke njaboot yi ko meññ nag ñoom ñooy ñan moom sëriñ cheikh mbàkke du yooli muy doomu sëriñ abdul xaadir mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ du yooli sëriñ Abdou mbàkke soxna sëriñ mbàkke soxna di doomu sëriñ abdu xaadir mbàkke sëriñ abdu xaadir mbàkke di doomu maam balla mbàkke maam balla mbàkke nag di doomu maam maara mbàkke waajuram jigéen wi nag di soxna faati gom doomu sëriñ moo du gom la ci dëkk bu ñuy wax fuuta nag la bàyyi ko woon nag moom magam sëriñ sayer gom moom moomu nag di soxna faati gom bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbal sëriñ abdu ja mbàkke duyooli mu nekk nag koo xam ne nii ku sëriñ abdu ja mbàkke duyooli nag gërëm la lu baree baree baree bari nag def na ko ci kër sëriñ abdu ja ñëwee ci kër gi mbooleem donga nag bu nekkoon ci kër sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli sëriñ Abdou Dia nag soxna Faati Gom mii nag la defoon nag mu nekk nag sa yaayu daara mbokki sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli yi soxna Faati Dia Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim daana wax ne lu àdduna yàgg-yàgg soxna Faati Gom dana am moom lu baax taxawu nag gu mu taxawu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli mbooleem nag ñi xamoon sëriñ Abdou Dia Mbàkke daa ko seet si saa buñ masaa ñëw nag ba gis nag doxal yi nu soxna Faati Gom mii ñëw itam nag benn seede rek la woon mooy soxna Faati Gom jigéen jigéen la nag ju baax a baaxa bi sëriñ Masàmba Mbàkke nag seetsee sëriñ Abdu Ja Mbàkke duyooli keroog itam soxna Faati Gom mi aw fas nag la jébbaloon sëriñ Cheikh Mbàkke di ko wax ne nag jox ko nag sëriñ Masàmba Mbàkke nag àddiya jëmm yooyu nag ñoo meññ turandoo Cheikhul Xaddim wii nag di sëriñ Mbàkke bi matee dal alxuraanul karim waajuróom nag sëriñ Abdu Ja Mbàkke nag moo ko dalal nag alxuraanul karima ginnaaw bu mu ko jàngalee nag ab diir la ko sëriñ Abdu Ja Mbàkke duyooli nag jël jébbal ko nag turandoom sëriñ Tuubaa Cheikhul Xaddim keroog bi mu koy jébbal nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim fukki fan ak nag la woon ci weeru gàmmu ab taalibeem nag buñ doon wooye nag sëriñ Jaaja Faal la sëriñ Abdou Dia Mbàkke Diyooli yónni woon nag ci sëriñ Touba Seexul Xaddiim ne ko nag soo demee nga xamal nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ne ko nag Cheikh Mbàkke mii nag laa ko tuddee bi sëriñ Jaaja Faal ànd ak sëriñ Cheikh Mbàkke ba ñëw nag ci kër gu mag gi sëriñ Cheikh nag daana nettali ne bisub keroog yoor yor bu dëgër nag lañu gis nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim te buntu kër bi ñu jaare nag ci biir kër gi moo tollook nag kër sëriñ Mouhamadou Dem gi nee na nag ci buntu boobu nag la ànd ak sëriñ jaaja faal ñu dugg fi nag ngir gis nag ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiima bi ñu eggee nag toog nañ fa itam nag doogu ubbi bi seexul xadiim nag ubbee dane ana ñooñu nag ñan la sëriñ jaaja faal nag di ko xamal ne mën a jaaja faal seexul xadiim nag di ko xamal nag ana ngeen bàyyi koo mu di ko xamal ne nag kër sëriñ abdu jàmbàkke du yooli nag lañu ñu bàyyi koo sëriñ abdu nag moo ne woon naa la indil sëriñ cheikh mii ndax yow nag la ko tudde sëriñ cheikh mbàkke nag na kero sëriñ tuuba daa toog ne fekk nag mu yor ko ginnaaw bu mu tegee kaamilu alxuraan bi nag ci kawam daa jël loxoom nag teg nag ci boppub sëriñ cheikh mbàkke ñaan nag diir bu yàgg a yàgg daa di tufli xamal nag sëriñ jaaja faal na ko soo demee nag nga nuyul ma abdu te nee ko nag gisees na ko ca yoon woowa nag sëriñ cheikh mbàkke nag toogul nag ci sëriñ tuubaa daa delluwaat nag ci ëttub waajuram sëriñ abdu ja nag téyewaat na sëriñ cheikh nag ab diir wéel nag am njàngam ginnaaw bi nag la ko jëlaat nag jébbalaat ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ci bi mu koy jébbalaat nag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ñetti nit nag la ko booleel moom nag muy ñeent muy sëriñ mahmoud mbàkke nag rakkam sëriñ saalihu mbàkke nag rakkam sëriñ ilimaan mbàkke nag rakkam ak moom sëriñ cheikh mbàkke jébbalaat leen nag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim bi leen fa seexul xadim téye ab diir la woolu nag sëriñ Abdou ja nag ba ñëw di ko xamal ne nag gone yi nag laa bëgg nag ñu xamal leen sëriñ Abdou Dia nag di xamal sëriñ Touba Seexul Xadim ne bis ba ma la jébbalee gone yi daal laa ci noppi woon sëriñ Touba nag woolu ku ñuy wax sëriñ Moor Jobbe Touré dëkk bii nag di Touré Ndula ginnaaw bu sëriñ Moor Jobbe nag ñëwee seexul xadim nag di ko xamal ne ñi nag damaa bëgg nag nga xamal leen waaye nag bu leen fitnaal seexul xadim nag di xamal nag ñoom sëriñ Cheikh Mbacke su ngeen demee nag ngeen nangoo xamtu yéen itam mu ñaanal leen sëriñ Mor Jobbe Touré mi nag ci Touré Ndula nag moo leen jàngal alxuraanul karim nag ba ñu mokkal ko moo leen tàmbalee jàngale itam nag xam-xam bi fi seexul xadim nag bàyyi ko ci atum 1927 la sëriñ Cheikh Mbacke Duyooli delluwaat nag ci loxoy waajuram nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Duyooli nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Duyooli mi nekk nag fi loxoy sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli ba am bis nag sëriñ Masàmba Mbàkke mi rakki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima ñëwoon gana si nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli ci dëkk boobu nag di Mbàkke Mbayaara bi sëriñ Masàmba Mbàkke nag di ñibbi la soxna Faati Gom jox nag aw fas sëriñ Cheikh Mbàkke Duyooli nag di ko wax ne nag ziyaare ko nag sëriñ Masàmba Mbàkke mii te yoon booba itim nag la sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli jël nag taawam bi jox ko nag sëriñ Masàmba Mbàkke bi mu ñëwee nag ci loxoy sëriñ Masàmba Mbàkke sëriñ Masàmba Mbàkke itim nag wéel na nag am njàngum xam-xamam ba ni fi sëriñ Masàmba Mbacke bàyyi ko sëriñ Cheikh Mbacke Duyool mi ngi ci loxoy nag Cheikh Massamba Mbacke ci 1942 nag la sëriñ Massamba Mbacke nag génn àdduna ginnaaw bu ñu taxawoo ginnaawam nag ba noppi la sëriñ Cheikh Mbacke dellusiwaat nag ci loxoy waajuram ci dëkk boobu nag di Mbacke Mbayaara Mbacke Mbayaar googu nag la nekkoon nag waajuram ba mu fa nekkee ab diir nag la bàyyi ko Mbacke Mbayaar dem nag ci dëkk bii nag di Mbar ci kër sëriñ Abdourahmane Bousso bu Mbar foofu sax nag la nekkoon ginnaaw bu mu fa defee ab diir nag la jàll nag taalibe waajuram nag bu fa nekkoon bu ñuy wax nag ma yaasin ñang muré googu sax am na doom nag duñ fa denc mooy ki tudde woon rakkam nag sëriñ ilimaan foofu la génnee àdduna ci dëkk boobu itam nag lañ ko denc ginnaaw bu mu fa nekkee nag ab diir nag bu yàgg a yàgg am bis nag sëriñ moo Moodu Maamun Mbàkke di waajuram moo ko xamal ne daal danga war a delluwaat nag dëkk bee nag di Mbàkke Mbayaar soo demee itam na nga nekk nag ci sa wetu waajur wa sëriñ Abdu Ja Mbàkke du yooli ndax kat jëm na mag yow mi dong nag yaa nekk waajuróom nag sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli itam nag jox ndigal sëriñ Cheikh Mbacke di ko xamal ne daal na dem nag daaru salaam du yooli nag sancaat kër ga bi mu ñëwaatee nag daaru salaam nag du yooli sancaat kër gi nag nekk fi jafe-jafe yi neen nag la fi jànkootee loon ndax nag ab village nag la ko bëggoon a def waaye kanton yi fi neewoon nag dañ ko gàntaloon dox na ci nag ba ndar gouverneur bu ndar bi itam nag di ko xamal ne canton bi nga nekk daal nag bu ci àndul daaru salaam du yooli nag du mën a nekk nag ab village mu bàyyi koo fa nag ñëw nag yëgal ko nag doomu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba mu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke Cheikh Mamadou Bachir Mbacke itam nag moo ci àndoon nag ku ñuy wax nag li Yelimanel faal mu nekkoon nag président canton yi ginnaaw bu ko mu dul bashir nag lijjantee lañ mujj def nag Daaru Salaam Duyooli village nag numéro 2 mu wéy nag des foofu nag di liggéey nag di yët waajuróom ba nim mujjee gis nag waajuróom mu toog nag toogaayu nag waajuróom nekk itam nag ab xalifaam nag bu njëkk li ko dalee nag ci atum 1966 ba ci atum 1998 mu nekk nag ku bëgg ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim waaye ku ko yemalewul nag ak dara nekki nag ku amuk taalibe nekki nag ku fonk addiya dépaasu boppam nag goo këram su ko masaa sax nag di joxe addiya nag la ko tudde woon addiya jooju nag mu fonkoon tax na nag lépp nag lu masaa am da ko it nag ki fi nekkal sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waajuram nag moo ko xamaloon ne ku fi nekkal Seexul Xaddiim nag na nga topp nag ci ginnaawam mu sos nag liñ tudde nag ay addiya njabootuk sëriñ Abdu Ja Mbàkke Duyooli nag di ko yóbbu ki fi nekkal nag sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim loolu nag moom moo ko indi ci njabootug sëriñ Abdu Ja ndogaluk sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly moom itam nag moo ko sos ñu ko daa amale itam nag ci ndakaaru ndakaaru googu sax demoon nañ ba tuddee fa sax am mbedd nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly màggal googu itam nag ñu fa daa amal ginnaaw bi nag la ko jëlee itam nag ndakaaru indi ko itam nag ci dëkk bu seel bii nag di Touba boobaak léegi itam màggaluk sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly itam nag mi ngi am mu nekkin nag ku fonk nag ay rakkam ba tax na itam nag ñu ci takkoo takkoo takku nag ci ay rakkam itam nag tudde na leen doom mu nekkin nag ku jaxasoog sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke seeni mbir kan muree nag la tàmbalee booba nag sëriñ cheikh mbàkke duyooli nag mi ngi nag ci dëkk boobu sëriñ tuuba cheikh abdoulahad mbàkke mi ngi daaru salaam nag bukki barga saa su ne itam nag daanañ gisee nag ñoom ñaar ba ci tool boobu nag sëriñ tuuba cheikh abdoulahad mbàkke amoon ci dëkk boobu nag di daaru salaam bukki barga saa buñ ko masaa nag di bay sëriñ cheikh mbàkke nag la daa def nag jëwriñ jë ñu wéy nag ànd nag ci loolu ba ni sëriñ moodu maamun nag sàkkoo ci sëriñ cheikh mbàkke duyooli nag mu delluwaat nag mbàkke mbayaar dem nag taxawu nag waajuram sëriñ abdu yëgal ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke di ko xamal ne daal sëriñ Modou Mamoun nag moo sàkku nag ci man ma delluwaat nag ci dëkk bi nag di Touba Mbayaar dem nag ci loxoy sëriñ Abdou Dia Mbacke duyool ndax jëm na makkat te man mii nag maay ki ko war a taxawu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag keroog bi muy tàggatoog sëriñ Cheikh da koo xamal ne foo man di nekk nag ci àdduna danaa la fa fekk nag sa yitte nag mooy sama yitte sa yitte nag lu mu kawe kawe kawe su ma ko jotul danaa yoxamtiku nag ko nag jébbal la ko lu mu nag ba ronn ko fopp ko nag jox la ko ànd boobu ñu àndoon nag ñoom ñaar ñooñu bi sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag nekkee xalifa général des mourides yóbbu woon na sëriñ Cheikh Mbacke nag màkkatal mu karama ngir nag mu dem nag mott li nag ponki lislaam ziyaara ji wàlle itam nag ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam bi sëriñ Cheikh Mbacke nag ñibbisee ba ziyaar si nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag mi ngi ko doon xamal ne ana waa màkkatal mu karama sëriñ Cheikh nag di ko xamal ne daal ñi ngi fi sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag laaj na ko ko nag ñetti yoon waaye saa su ne daal tontub sëriñ Cheikh Mbacke mooy waa màkkatal ma nag ñi ngi fii bi ko sëñ abdoulahat mbàkke xamalee na nag waa màkk nag laa lay laaj sëriñ cheikh nag di ko xamal la sa waajur wa waxoon daal moom laay sukkandiku muy màkk ak kaaba indil nañ ma ko nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa moo tax nag ma ne la nag ñi ngi fi sëriñ tuubaa cheikh abdoulahat mbàkke itam nag daana wax nag sëriñ cheikh du yooli foo ma soxlaa muy guddi wala bëccëg may naa la nag nga gis lu mbooloo bare bare bare nag soo ma soxlaa soo ñëwee itam nag danaa la gis mu nag ànd loolu nag ci sëriñ tuubaa cheikh abdoulahat mbàkke ba ni mu noppee gis nag sëriñ sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke mu jël léppam nag yébbal sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke waaye laataa sëriñ Abdoul Xaadir Mbacke itam nag di toog xalifa général nag des mourides ñoom ñaar itam nag ñu jaxasoo woon lañu woon ba tax na sëriñ Abdoul Xaadir Mbacke nag daana gane si du yooli googu nag sëriñ Cheikh Mbacke daana ko gane si itam nag diine sëriñ Abdoul Xaadir Mbacke itam nag moo sàkk woon itam nag ci sëriñ Cheikh Mbacke wala nga am nag ku génn àdduna ci say taalibe naa ko yëg boobaa nag maa la koy taxawul diggante bu yaatoo yaatu nag la ñaari jëmm yooyu nag Mbàkke itam nag kasaalika ñoom ñaar itam nag ñu jaxasoo woon lañ woon ba tax na itam nag ku sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke fonkoon la waaye moom itam nag ku fonkoon sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke la sëriñ soin bu Mbàkke ku jaxasoo woon ak sëriñ Cheikh Mbàkke du yooli la woon tax na itam nag sëriñ Cheikh Mbàkke du yooli itam nag tudde na ko doom Cheikh Mamadul Bachir ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku fonkoon sëriñ Cheikh Mbàkke du yooli la ba bi sëriñ Cheikh Mbàkke du yooli di lijjanti dëkk boobu nag di Daaru Salaam du yooli ngir mu nekk nag ab village sëriñ Basiiru nag moo ci dox nag ba mu sotti tudde na cheikh mamadul basir mbàkke doom cheikh murtada mbàkke itam nag ku jaxasoo woon ak sëriñ cheikh mbàkke du yooli la ne itam nag daana du yooli moom moo koy taxawul boppam njabootuk sëriñ tubaa seexul xaddim gu jigéen gi itam nag noonu itam nag la meloon ak ñoom ñëpp itam nag noonu la leen jàppe woon muy seexul xaddiima mu nekki nag ku jaxasoo woon ak soxna assu gaawaan mbàkke addiye yu baree baree bari nag daana ko yit nag soxna si soxna si itam nag gërëm na ko ay yooni yooni yoon di na murit saadeex nag moo nekk nii mu nekk nag ku bëgg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim lépp lum daa def nag su noppee nag addiyey seexul xadim nag lay wax ne moom la daana xiirtal itam nag ak njabootam di leen di wax na nag lépp lu ngeen man di def su ngeen noppee def leen ko addiyey nag seexul xadim addiyee de bépp murit nag bu koy joxe seytaane moom du la mënal dara diirum nag lim fi nekk itam nag dépense su këram su ko joxee itam nag addiyey seexul xadim nag lay wax bëgg googu mu bëggoon seexul xadim ak fonk googu mu fonkoon addiya am na bis nag sëriñ tubaa seex abdul ahad nag gana si woon ko ci dëkk boobu nag di duyooli keroog bi sëriñ Abdou Lahad Mbàkke nag di tàggoo sëriñ Cheikh nag mi ngi koy xamal ne nga gi dem daa mel ne des na dëkk bee di dëkkub sama waajur nag wu jigéen di ndiine laa bëggoon nag nga ñëw fa sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad nag di ko xamal ne nag kañ nga ko bëgg sëriñ Cheikh Mbàkke nag di ko wax ne bisu tey bi daal bu delsee nag laa ko bëgg ñetti fan nag la fa sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke def dëkk boobu nag di ndiine dëkk la nag boo xam ne nii nag sëriñ Cheikh nag da koo fonk ndax waajuram wu jigéen nag fa la cosaanoo di soxna Faati Mbàkke foofu itam nag la feeñe jamono doom jii nag mu faye sëriñ soye bu Mbàkke itam nag fa la feeñe jamono moo tax nag sëriñ soye bu Mbàkke nag ñu gën koo xam ne ci sëriñ aboo foofu itam nag la ko dël mu nekk fa ginnaaw bu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke tàggatoo nag ci dëkk boobu nag di ndiine ci nganu ñetti fan yooyu nag mu fa am sëriñ Cheikh Mbàkke da ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax nag daara màngoo di ay tool nag yu mu fa amoon mu am bërëb boo xam ne nii nag dañuy nattable seexul xadim nag julli na fa waaw nag wala déeta sëriñ Cheikh Mbàkke nag ci bëgg gum bëggoon sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke sàkku itam nag ci sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag mu julli fa keroog nag ba fa sëriñ Abdou Lahad Mbacke jullee la doon xamal na képp nag ku ci daa am nag sikki sàkk na léegi nag war naa jeex ndax sëriñ Abdou mii nag moo fiy seexul xaddim te nag julli na fi dëkk boobu nag di Daara Mango nekki nag ci wetu dëkk bii nag di Kër Sayer ci département nag bu Bambey doomam ji nag mu faye mu dul Bachir Mbacke di sëriñ Bachiru Mbacke moom nag la fa dël nag mu nekk fa mu nekk loolu itam nag moom daana wax bëgg gum bëgg sëriñ Touba Seexul Xaddim moo tax nag lépp nag lu mu sàkku sëriñ Touba nag defal ko ko yéeme googu mu yéeme woon taxoon na nag waajuram sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli mas na wax nag ku ñuy wax sëriñ Mbay Géey di ko xamal ne Cheikh Mbàkke mii da baa du ngeen ko def nag lu ko metti sëriñ maam Mbay Géey nag di ko xamal ne nag déedéet mu di ko xamal ne nag Cheikh mii nag ko jara moytu la ndax nag daa yor nag ci ru boppam bëgg googu mu bëggoon sëriñ Touba te bépp yitte nag bu masaa am itam nag bëgg sëriñ Touba googu fajal ko ko Faatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim dafa xamal nag ndaw li ko yëgaloon gis Sëriñ Tuubaa de lu koy yomb la ndax da koo bëggoon mu defar nag mbooloo mu baree baree bari wala mu yar nag mbooloo mu baree baree bari ñu mën cee ràññee nag kuñ doon wooye Sëriñ Abdu Juuf ci dëkk bii nag di yaddu Sëriñ Naar Ñang ci dëkk bii nag di yaddu Sëriñ Bokar Ñang itam ci dëkk bu ñuy wax nag yaddu Sëriñ Abdu Yum ci dëkk bii nag di Bambey Sëriñ Manjaay Yum ci dëkk bii itam nag di Bambey Sëriñ Cheikh Seen ci dëkk nag di Bonje Sëriñ Moodu Njaay Caam Sëriñ Ibrahima Ñang ci dëkk bii nag di sëriñ Alioune Ndiaye sëriñ Massaer Seck sëriñ Moussa Ndiaye moom yoroon na nag watiiru sëriñ bi Baye Fallou Cissé mii nekkoon nag rajo Dunia moom itam nag sëriñ Cheikh Mbacke Duyool itam nag moo ko yar nekkoon na itam nag ci biir këram nag lu yàgg a yàgg sëriñ Baara Diouf sëriñ Cheikh Ndiaye mi ngi ci dëkk bii nag di Daarul Minan ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne nii jaar nañ nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam Duyooli ci loxoy sëriñ Cheikh Mbacke Duyooli yoroon na nag soxna suñuy wax nag soxna Khoudia Gueye mook soxna Khoudia Gueye nag am nañ ak njaboota muy soxna Daba Mbacke sëriñ Alaaji Alaaji Mbàkke sëriñ Moustapha Mbàkke sëriñ Abdul Ahad Mbàkke sëriñ Basiiru Mbàkke soxna Baali Mbàkke sëriñ Murtada Mbàkke soxna Faati Gom Mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Sooda Gom mook soxna Sooda Gom nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Masamba Mbàkke soxna Xadi Mbàkke sëriñ Saalihu Mbàkke ak soxna Ayda Mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Ñang mook soxna Ñang nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde soxna Mbeen Jóot Mbàkke ak sëriñ Xaadim Mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Faati Seck mook soxna Faati Seck nag benn bant nag lañu am muy sëriñ Abo Mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Wali Fay mook soxna Wali Fay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alaaji Mbàkke ak sëriñ Abdou Salaam Mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Faati Njaay mook soxna Faati Njaay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Mbàkke sëriñ Jiili Mbàkke sëriñ Mbàkke Mbàkke sëriñ Mahmoud Mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Musli Njaay mook soxna Musli Njaay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ca ràññee nag sëriñ Mouhamadan Mbacke sëriñ Issa Mbacke sëriñ Modou Mamoun Mbacke ak soxna Faati Mbacke na soxna suñuy wax nag soxna Aada Ja mook soxna Aada Ja nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Xaadim Mbacke ak soxna Faati Mbacke soxna yooyu nag la dëkkoo woon njaboot yooyu itam nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot gi mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Daba Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Modou Faati Xari Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Modou Faati Xari Mbacke itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee nag sëriñ Mamor Mbàkke ñeneen nag ñim amoon nag sëriñ Moodu Faati Xari dañoo génn nag àdduna doom ji nag di soxna Xadi Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Omar Bousso nag lañ ko jébbaloon moom sëriñ Moussa Bousso moom sëriñ Saa Bousso mook sëriñ Omar Bousso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Xaadir Bousso sëriñ Moodu Bousso sëriñ Ma Bousso ak soxna Faati Bousso doom ji nag di soxna Mbeen Mbàkke mu matee dem kër sëriñ Sam Mbàkke moom sëriñ Moodu Jee Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Sam Mbàkke itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Njóoba Mbàkke sëriñ Saaliwu Mbàkke soxna maam awa mbàkke ak soxna muumi mbàkke doom ji nag di soxna maam faati mbàkke sëriñ mahmoud mbàkke moom sëriñ alaaji mbàkke moom sëriñ abdu ja mbàkke du yooli nag lañ ko jox mook sëriñ mahmoud mbàkke itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ seexuna mbàkke ak sëriñ murtada mbàkke ginnaaw bi nag soxna maam faati mbàkke moom jébbal nañ ko nag sëriñ moor sekk mook sëriñ moor sekk itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna assu sekk ak sëriñ ibra sekk njaboot yooyu ñu leen tuddal kër yañ dem njaboot yañ fa am ñooy leen itam nag ci sëti sëriñ bi mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di duyooli ci ndigal loo xam ne nii nag waajuram sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli nag moo ko joxoon wii itam nag toog toogaayu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 1998 turandoo Cheikhul Xadim bi nag di sëriñ Cheikh Mbàkke duyooli mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci dëkk bu seel bii nag di Touba ci bisub ajjuma fukki fan ak juróom benn nag ci weeru korité ci atum 1418 nag ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom benn nag ci weeru korité ci atum 1418 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 13 février 1998 vendredi 13 février 1998 ñu yëgal ko nag ki fi nekk nekkuloon sëriñ Touba Cheikhul Xadim di sëriñ Touba Cheikh Saliwu Mbacke mu joxe ak ñaanitim sàkku itim nag ñu denc ko nag ci wetu waajuram Cheikh Mourtada Mbacke nag mi nekkoon doomu Xaadimu Rasuul boobu nag mi ngi ci ab tournée ci diggante ngin gi neew ak Bambey biñ ko ko yëgalee la wax ne turandoow Cheikhul Xadim woowu nag di ab xaritam moom nag mooy ñëw nag taxawu si ko ñu yëgal ko nag soxna Maymunatu bintu sëriñ Touba Cheikhul Khadim ndaw la ko doon yëgal nag doon ko xamal ne dañ doon sàkku ci yow daal mu giseeg Cheikhul Khadim soxna may nag di ko tontu ne ndaw nag lu yomb ndax sëriñ Cheikh nag taalibe nag la woon ñu denc ko nag ci samedi ji te boori timis Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Khadim Rasoul nag moo ko jullee ci teewaayu nag kilifa yu takkoo takkoo takku nag ci yoonu Mouride ñu denc ko nag ci wetu waajuram nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dale nag ci atum 1998 ba ci atum nag mooy ki ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ cheikh mbàkke duyooli mooy sëriñ moustapha mbàkke li ko dalee nag ci atum 2007 ba ci atum 2016 ñetteelu xalifa nag sëriñ cheikh mbàkke duyooli mooy sëriñ masamba mbàkke moo fi nekk nag ci atum 2016 nag ba nëga ni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu séqal sëriñ cheikh mbàkke duyooli moom sëriñ cheikh mbakke nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal bis bii nag mu njëkk gis nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk nekkoon nag fukki fan ak juróom nag ci weeru gàmmu ci dëkk boobu nag di njaareem la sàkk woon nag ci ak njabootam buñ demee nag bu mënuñu koo ñàkk bañ a wutal nag bis ñu jàpp nag bis bii mu njëkk gis nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu nekkoon nag fukki fan ak juróom nag ci weeru gàmmu ginnaaw bu mu fi bàyyi ko boobu itam nag la ak njabootam jàpp wutal ko ci nag ak màggal muy bis bi mu njëkk a gis nag turandoom di fukki fan ak juróom nag ci weeru gàmmu nag ci njaareem njabootam itam nag di ci dabu te mi seen waajur amoon nag bi bisub keroog ci bi mu gisee nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bis boobu itam nag la njabootam jàpp nag di ko ci fàttaliku nag ci liñ ak màggal ñuy ñaan ci turandoo cheikhul xadim wa doon wooye sëriñ cheikh mbàkke duyooli doomu sëriñ Abdou Dia mbàkke duyooli ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem lir jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay mbàkke amiin darajay mbàkke amiin darajay mbàkke amiin